وجهت وجهي لمن تكريم بنا بسال مولد من في البر ربنا وجهت وجهي لمن تكريم بنا بسال مولد من في البر ربنا jotaay bi li ko waral yaakaar naa bu jar ñu ci dellu si waat jaar ay mooy ay conférence publique yoo xam ne éducation culture bi ci commission bi dafa bokk ci seen feuille de li ñuy liggéeyee ci at mi bii ñaari bi yoon tey jii nag ñu fas yéene waxtaanee lu am solo loo xam ni yaakaar naa ne ñun ñëpp danañ ko bàyyi xel ndax bu ñuy wax yi dëgg dëgg dëgg mooy li li sëñ Ahmadou Ndiaye bëgg a waxtaane tey démocratie liñ ko liñ koy tuddee mooy mooy muy le équilibre muy kenn ku nekk mbir mi ñu jox la sa wàll waaye bu dee ci doxalin àddina ñun mën naa mën naa bañ a demee noonu waaye bu ñuy wax faatu li ñuy wax dee moom mooy démocratie dëgg-dëgg mooy kenn ku nekk dana ci jot wàllam léegi nag loolu ñuy wax aaxiru ramaq nit ki bu tollee ci ay ay waxtoom yu mujj nan lañ ko war a taxawoo yan lañ ko war a defal yan lañ war a bàyyi xel ci moom loolu insha allah taala la sëriñ njaay Ndiaye fas yéene laabirante ak ñun te itam ñu xam ne daa munta njàkk ndax suñ borom moo waxoon ni maa digée ku dem doo dellu si dem munta ñag te ku dem doo ñëwaat allasi xalaqal mawta wal xayaata kon dee la njëkk bind ci dund moo tax kon ñun amatul lu ñuy sikki sàkka ci ne nit ki moom dana faatu ndax bu dee ci góor ñi bés bu set ñu yanu seen mbokk yóbbu ko ca barab ya bu dee ci jigéen ñi tamit danañ dem ca barab ya léeg-léeg di ziyaare yi kon nattable amatu ci moo tax suñ boroom waxoon ci aaya ba ah, nit ki su tollee foofu maanaam bu ñu woowoon sëriñ bi dàq ñaan ci kaw suuf su bindee saafara jox ko day yokk tawat ji suñu woo docteur bi dàq faj su ko su ko su ko consulté ba noppi bindal ko ordonnance suñ ko joxee garab yi su ko naanee tawat ji day yokk suñ borom ne tey ji moom xëy ñëw rek walla gont fanaan si moo tax ginnaaw mënta ñàkk nag war nañ ko waajal bu baax a baax a baax Euh, dañuy bañ a xóotal bañ jël waxtu bi ndax mel na ni li ci li ñu war a waxtaanee lépp sëñ Ahmadu dina ci dikk ak ñun li ñu ñaan rek mooy ñu teewlu ko bu baax a baax te xam ni kenn ku nekk jàpp ni yow lay waxal kenn ku nekk na jàpp ni li ñuy waxtaanee yaa ko moom ndax am nga ci wàll mënta ñàkk kon sëñ Ahmadu bismillah di nuyu mboolem mbokki taalibe yëpp di ñaanal borom barab bi ñu fekk si tey muy sëñ Bada ko ñaanal yërmande suñ borom ak njëggalam ak mboolem ñam nekkal ca barab ba ñëpp ndax ku amoon cofeel ci mbooloo mi la ko leen daan bàyyi xel la naka jekk yàlla na suñu boroom gàttandu ak yërmandeem taxaw njabootam gannaawam barke Sëriñ Tuubaa nuy jëkkante ak waxtu wi di yëkkati sunu kàddu kàddug fàttalante rek kàddug laayante biir kàddug soññante ginnaaw boo xamante ni ni nun ñépp maase nañ xam ni fii du kërug saxukaay loolu amut ku koy nattable ci ñun mbaa ku cay sikki sàkk kon ab jaaruwaay la mu am fun jëm te foofee nu jëm dara du fa jariñ lu dul ak ragal yàlla képp moo fay jariñ loo fa mën a indi te du xol bu set bu laab dana la indi li jafe-jafe kon su nasee mbooloo mii nu boole nuy séq ak yéen ay jataay li ñuy wax lépp foofee rekk la war a aju ndax mooy suñ njariñul tey mooy suñ njariñul ëllëg nit ñi nag moom neexatuñoo waxal ndax la sëriñ Cheikh Mbacke daan wax rek mooy ñu bari baaxuñu te li ñuy bon bon bëgguñu ku leen gën loola nag ku ca ne war ngaa fàggu sa bopp war ngaa teel a am yitte te daw jëm ci sa borom moo tax muy wax ni jàngi leen seen diine te def ko ci seen xol yii te jëfe ko ngir yàlla jàngi leen seen diine te def ko ci seen xol yi te jëfe ko ngir yàlla képp ku ko ci defut bis dana ñëw da nga ko réccu koo mën a yaakaar yërmaaneem suñ borom a ko ëpp yërmaane ci yow koo mën a yaakaar ndimbalam suñ borom a ko ëpp ndimbal ci yow te Sëriñ Tuubaa waxoon na ni bu xasee yëkkati yaram ba bay dóor kenn amut fit ak njàmbaarug di ca jàpp kenn kon nanu delloo siwaat sunu xel bu baax a baax te feet di liwaat sunu laxasaay te wan àdduna gannaaw daw jubali sunu borom jublu yàlla nag weesu def li mu digle bay bàyyi li mu tere loolu rekk mooy jublu sunu borom te loolu yàlla santaanewu ci lus mënut mboolem lim ci santaane lépp mën naa nekk kon aw lay amut mu mel ni tomb bi nu bëggoon a waxtaane tey fàttalante ko ak yéen mooy minute yu mujj yooyu doomaadama di mujje nga xam ni mat naa bàyyi xel bu baax a baax te bañ ca wéye njort ndax minute yu doy war la yoo xamante ne ni ni nga koy séene ci sa bët bokkut ak réalité ba fa nekk ni la ko sa bët di wane du dëgg-dëggi mbir ma te bokk yi ndekam bët moo lay wan lu dul dëgg askam ak njort te léeg-léeg sa bën wat la loo xamante ni ni wóor na ne la bu ñuy wax danga naan maa ko gis waaye du dëgg wérut danaa ci joxe exemple bu ndaw bu yomba jàpp jant bi rek booy téen da nga naan jant bi moo ko palaata bi am da ngay ni moo ko palaata tolloo bu ñu la ko yanee man nga ko yóbbu ndaxub tuutiwaay jant bi xamal ni moo ëpp suuf si nga taxaw lii suuf ci àdduna jant bee ko ëpp moo tax ku teen mën koo gis biddiw yi bu guddee dangay ngay defee ni biddiw yi bu ñu la ko joxee mën nga koo ŋëpp ndaxub tuutiwaay loolu la la sa bët wan waaye du dëgg suuf si nga taxaw am na ci biddiw yoo xam ñoo ëpp suuf si ndegam bëtt lay wan lu dul dégg nag askamaak loo xamante ni ci njortu rek nga ko teg moo tax nu bëgg a fàttalante ak bokk yi jataay boobu yi ndax ñu mën koo bàyyi xel faatu nag boroom xam-xam yi wax nañ ci lu bare bari xëy na am na ñu ko gëm am na ñu ko gëmut luy problème bi mooy ña ca xas jaar moom xam nañ nu mu demee waaye retour amut bañ mën nu ko nettali ñun ñi ci àggagut lu ca waay wax dañuy defe da wax rek ndax demewut noonu ndax léegi laa doon wax ak diw ba mu yàgg ñu ni ma faatu na diw daa tëdd rekk yeewuwut wut doon añ tibb sex ñu yëlab loxoom génne da doon duggi ba ñëw di waaj a far daanu ca waañ wa da woote laatu ñu koy wuy ji yooyu yëpp da ngay xam ni ab dëkk ku ko bëgg a tuxal fobi néeg wu ne danga ko gis dëkkub lëm ku ko bëgg a tuxal fobi nu néeg wu ne da ko gis loolu rek lay signifié waaye tekkiwul ni dee dafa yomb moo tax mu mat a bàyyi xel bu baax a baax boroom xam-xam yi biñ ni misaal ci faatul la leen ca sun borom xamal dañ mi ngi mel ni picc moo suqi ba mu set pool yi ñuy saafe gerte nga saasal ko ba mu saas nga jël picc ma teg ca di ko saaf te réyoo ko ñu ni noonu la dee méttee ñenn ñi ni déedéet mu ngi mel ni nga tiim am xar rendiwoo ko ba pare di ko fees bëgg a tàggalee der bi ak yàpp wi te rendiwoo ko ñenn ñi ni mi ngi mel ni juróom-ñaar fukki ponkal kenn ku ne yor jaas yi ñu xàccandoo ko dóorandoo la ko benn yoon ñeneen ñi ci des joxe misaal ni mi ngi mel ni car boo xam ne dafa am ay dégg sax ci sa yaram ba fu ne mu jàpp fa ba am cat lu génn ci kaw ñu jox ko ponkal ni la buddi ko muy rocc ko ba keroog muy jeex ñu noonu lañ ko joxe misaal moo tax may wax ni danga ko ëmple ndax jaaragun ca te ña ca jaar nettaliwuñ ñu ko ndax retour amut waaye ku ca àgg da nga xam ni yàlla boor la mu ngi mel ni ndeysaan jigéen ñi ci jaar ci am doom sooy wax ak gone ku jigéen gu sëyagut loo mën a wax day defe ni dangay ngay da ngay ñàngal rek waaye affaire bi demewut noonu waaye bis bu yéegee ca kaw taabal ja balaa doom jaa judd dana xam ne li nga ko waxoon lépp dëgg la te loolu du dara ci dee jotewuñ dara ndax dañ ni mettitu am doom mook dammandoo ñaar fukki yax ak ñeent ci nit ñooyam nga dammandoo ko benn yoon mettit woowu diggante bi doom ji génn mettit woowu lay yor waaye sekkar ba ci suñu borom def mooy bu doom ji juddoo fàtte na ko bokkut ak lii nag moo tax nu war a bàyyi xel sunu bopp bu baax a baax ci dimbalante taxawante ci sunu biir ba waxtu yooyee buñ ca àggee taxawaay yi mu laaj nu man caa jàppalante te yaakaar yërmaande sunu borom loolu rekk moo waral jataay yii ñu di ko def nu gis ni jataay la yoo xamante ni nii ku nekk ci ñun suñu wàll nga ci li tax wax ji neex nag mooy daanee ca kanam su newoon ca gannaaw da nga naan man weesu naa ko waaye daanee ci kanam te nun ñëpp ci lañ dox jëm lu ne ci kanam nag te nun ñëpp dox jëm jëmam wax ci yomb na ndax ku weddi moom danga koy bàyyi ba mu àgg ca te kenn ku nekk ñun sab cëra nga ci boo xam ne kenn du la ko jëlal kenn kenn du la ko jëlal yaa koy teggil sa bopp moo tax tey ñu tànnoon tomb boobu yi ngir bëgg cee oh, laayante biir mu mel ni nit ki bi mu mënal boppam boobu ku ne mën naa dëkk ak moom waaye man-man bi da kontine ndax doomu aadama ak dundam ak néew doole da koo jiitu ak néew doole mujj ko man gi ne ci diggante bi kon li mu néew doole moo gën a bari li mu am doole te ñaar yépp benn bu ci nekk taxawaay la laaj yu am solo sax rawatina nag bu mujj bii nga xam ne sun borom dee la jëkk a bind te ala kulli xaalin dana ñëw te jàngoro la ju sun borom boole ak nun te kenn amul lu koy fajtal bu la nee sarax dee rekk fa su woppi dee xasee njëw amul kenn ku ca man dara xanaa bu ñëwagut ndax nag dañ doom doomu aadama am na ñaari dikk benn bu jëkk bi mën na koo weesu muy suñ borom dogal na ko waaye namm ko bu mujj ba nag da koo dogal ba pare namm ko kenn mënta tee mu def ko bu njëkk ba nag sarax mën na koo fekk sëriñ bu mat ab sëriñ itam mën na koo fet mën naa tax ba bu njëkk ba doo ca dem waaye bu mujj bi moom saxaar gu départ cib gaar la jëm cib gaar ku ko tee àgg dana la yóbbaale kenn amut saafaraam moo tax bu nit woppee fi ñu nii da ngay dégg ñu ni dem nañ ci docteur yi rajo nañ ko def nañu analyse waaye gisuñu dara te moom xam na ni wérut ay bokkam xam nañ ni wérut loolu dana ko nangu dem nañ ci sëriñ si sunguf su ne joxe nañ ko xànc gu ne takkal nañ ko ko ndox mu ne sol nañ ko ko waaye day mel ni wopp ji day yokk moo tax mu ne xatta isa balaxati taraaxi waxii la man raaq mooy ñëpp jaaxle nañ léegi li ñuy wax mooy ay waay ku ci man dara boobaa kenn mënu ci dara moo tax boroom xam-xam ba wax ne wa isal maniyatu ansabat asfaraha fa alfaytu kulla tamimatin la tan fa nee na bu dee xasee samp ay weem ne ma dagg téere yëpp sànni nga xam ne amatul njariñ njariñatul dara diggante boobu nag day diggante boo xamante ne nii diggante bu bu yërëmtalu la ndax dara ca gënu ca metti yow mi tëdd mu wóor ne la tëraay bi boo ko jógee ci biir pax nga jëm loolu dara gënu ko metti dara gënu koo daw aw yaram mu wóor nañ la tëraay bii nga tëdd moom soo ci jógee yow ci biir pax nga jëm nga ànd ak loola ak lay metti ci sa yaram wala sax mën naa yàlla mën naa def sutura sa yaram dara méttiwu waaye wóor nañ la mënoo jóg wala boo dee jóg di dem itam wéroo te wóor nañ la lii la dal moom mënta yàgg ndax ñaari nit su tollooy foofu dana am lu mu xam ci boppam loo xamante ne ni danga ko wóor ni ko lii mu àndal su tàggook moom bakkanam daa ko ak moom loola nag li mu laaj mooy njaboot gu bari yërmaane njaboot gu laabiir njaboot gu am sutura te am cawarte loolu moo taxoon mag ñi daan ñaan ni yàlla bu nu suñu taxawu jéppi yàlla bu sunuy taxawu jëppi ndax léeg-léeg nga am malaat boo xamante ni ak room bu newoon ci sa loxo danga koy jekkali waxuma la moom mu noppalu waaye yow ci sa bopp yaa soxla noflaay ci sa bopp ndax saa yooyu yore ko wopp rek daanaka yow da ngay wopp ba keroog muy dem dangay ngay wopp waaye ñu gën a soxla nag taxawaay yu gën a jege yooya ci bu tàmbulee waaj bu tàmbulee wàccaay léeg-léeg nit danga ko gis moom mu wóor na la fi mu doon nii moom ma nga ca yoon wa loola doon nañ ca sopp lool nga farlu yow mi ko yor ci sobe di di tàggoo ak moom fexe ba aw moom di set ndax daa bari ñu tayeel lool loolu mooy tax ñu bëgg nit bu tollee foofu na ko ku am sutura daje jege ku am sutura nit ku toll ci wàccaay woowu moo nit ku toll ci wàccaayu am dooma yam nit ku am sutura lañu bëgg mu dend ak moom ku am sutura ndax daa bari foofu yuy xew te boo ko séqee ku amul sutura da koy nettali te foofu sutura la laaj ndax diggante bu bu tara tar la léeg-léeg bokk yi nga gis koo xamante ne nii kenn du ko mën a dox mbokk mu jege te am sutura rek te am maîtrise nag mën a muñ akuk dal te xam ne lii xew moom kenn xewalu ko yàlla dong ko xewal moom rek ko man dangay gis ñoo xam ne bala ñoo faatu fi ñu tëdd dañ ko saw bam tooy xëpp gis ñoo xamante ne bala ñoo saatu seenu taat dana tax xëpp yàqu ndax bari na loo xamante ni mbooloo ma du agsi ci moom ca ña koy saytu ca la yem boo gisee bu nit wéradee ñu ne nañ ko wàcce lal bi tëral ko ci suuf ndax tëraayub suuf a ëpp yërmaane déedéet an suuf dem tuuri indiwaat suuf su bees daa gën a yomb weer ab mat la te moom contrôletul boppam xamatul ci boppam dara lim def lépp fi mu tëdd la koy tëdd moo tax ñu ne àdduna loo ko mën a yenu yanu ci toroxal la lay mujj ndax magum jëmm mu kàllax moo xamante ne ni dem na ba léegi bu bëggee tuur ndox fi mu tëdd la koy def bu bëggee dem nag fi mu tëdd la koy def ko mbokk mu sës ci moom dong ko mën a taxaw te loolu yàlla jombaliwu ko kenn nag kenn kon laaj na foofu ay taxaw danañ bëgg itam ku farlu lool koo xamante ne nii waxtu jaamu yàlla yu julli bu jotee ak lu mu tële tële dee ko ni ko julli jot na mu julli ci am xelam julli moom bala ko suñu borom gàccee ca ba nga doonee mu kàllaf ba bi ngay tëdd ci lalub sukkuraat julli du la wàcc yaa xam na nga bañ koo def bu boobaa yàgg buur bi ko santaane woon du yàgg nit ñi waaye ba ba ngay tëdd ci lalub sukkuraat julli du la wàcc saa yu julli jotee nañ la déy ni la julli jot na nga julli ci sam xel foofu itam sopp nañ fu bu baax a baax kuy tudd yàlla ci sawet kuy tudd yàlla ci sa wet muy baatub laa ilaha la muy baatub tawxiid nga di ko wax ndànk-ndànk mu di ko dégg ndax dañ ni nit bu tollee ci jamono boobu yi dana fi mar mar woo xamante ni nii suñ ko doon jox géej gi mën na koo naan ba mu jeex te mar wi du dañ te yow kaasum ndox bi nga yor mënoo ko koo jox loolu itam boo ko waxee nit kuy analyser cim xelam rek dana loolu mënta nekk ndax maa ngi ko jox kuddug ndox mënu koo jàllale ñu naan boo ko joxoon géej loolu sekk rek suñu borom la ndax lan mooy am na ku toog ci wetam koo xam ne moom mi ngi koy gis te yow gisoo ko muy saytaane di wax ni la deel ci déenay kéefar ma may la ndox mu sedd nga naan nga xam ne am na ñoo xamante ne nii bi ñuy mën a waaxu di dem ak seen bopp diine ngi ànd ak ñoom waaye bañ tëddee ci lalu sukuraat seen pas-pas yàqu na bu yàgg ak kéefar lañ yóbbaale moo tax ñu bëgg foofu yi ku koy taxaw di répété baat boobu di def salaatu ala bi ngir métit woow wi nga xamante ne ni moom lay demee lu ko mën a woyofal teew mënoo ci dara ndax nit koo xamante ne ni mi ngi tëdd suñ ko joxee kuddug ndox mënatu koo jàllale bu dee kuddug ruy bu ca jàllalee genn jàmbaar la ci journée bi kooku laaj na ndimbal te dee li tax mu gën a doon kiimaan mooy booy dee say tànk lay tàmbalee yàlla ci sa tànk yi lay tàmbalee di rocci tànk yi di sedd ngay làmb muy seddaay bi di aju ba noo gi ci mujjoon génn mu ni këlëng nga xam ni kii dee na loolu nag du lu yomb dem goog yi muy dem nga xam ni nit ki li muy li muy noyyi da koy xëccoo ak moom du lu yomb bu ko tiim mukk ba defee ni lu simple la simple na ci yow mi koy gis nga xam ne gisub saayir ngay gis waaye woyofut am na ñu am sens nag ñoo xamante ne ni lu lu woyof tooy lay doon ci ñoom noonu ñu nga ko gisee rek noonu la demee waaye am na ñoo xam ne bu leen yàlla delloo si waatoon boo ko laajee danaa la wàccaayu mat nay at ci ni mu yàggee ci diire bi li muy gàtt gàtt ci yow ndax lan suñ borom dafa amut temps temps ci boppam amut ci suñ borom loolu ay sabab la rek yu suñ borom teg ci suñ diggante loolu daf cay daf cay baax ci dend goog yi nga dend ak moom ak di jekkal ab tëraayam fexe itam ba muy jublu xibla mooy bu faatoon niñ ko war a denc buy tëdd tëddul wopp na ko tëdde noonu di ko jubbanti fexe ba muy jublu xibla tey wax baat yooyu fexe itam ba jigéen ju ndaw bañ faa jege ndax ñaari li ñuy tàggoog sobe daa bariwul te li ñuy muur seenu yaram bariwut te ñaare fu ñu nekk malaakam yërmande dafay sori te kooki moom foofu fii mu toll moom malaakam yërmande dong la soxla bu boobaa lool lay jariñ ci taxawaay bi nga xam ne diggante boobu yi moom lool yi lañ fiy soxla ci taxaw muy fexe ba muy mos dara su ma nee jàll waaye fexe itam ba yaramam di set ay sëram di set fexe itam ba biir néeg bi li fi nekk ci ay nataal ay photo yu ñu wékk ak yooyu nga wàññi ko dindi ko fexe itam ba yiñ ko takkaloon yooyu yépp nga gaaw yi ko teg na leen fexe ba tëraay bi di jublu xibla su suñ borom ñëwee nag akub dogalam nga xam ne la yàlla nammoon moom agsi na lañ ca doon bëgg mooy yow nga tudd yàlla tooyal sa loxo sëlëm ko muy bët yi gëmm gis nga bëtam yooyu mu aj di ko xoole bañ ko toggee jëf ba boobi malaaka mi di rocc room gi li mu fi defoon moom lay xool ak ñeewante itam nag njaboot gi mu fi war a bàyyi nga xam ne daa war a tàqalikook ñoom tey jëm ci biir pax war leen fee bàyyi te xamul ci ban situation la leen di bàyyi doom yi ndaw yaag soxna yaa ngi ca gënoon a bëgg ak ña nga féeteloo nag ñooy ñëpp kenn ku ci nekk di dox ci sa wet mu wóor na ñii moom tàggoo nga ak ñoom yaa ngi jëm ci barab boo xamante ne nii xamoo fa dara amul benn information boo fa lu dul nii li la suñ boroom doon wax ci Alxuraan nga di ko nattable ñu commencé nag di la ko wan ngay gis ni xaj di xoolee di xool say jëf ya ca doon yu rafet doon ay jëmm yu taaru ya nga miinoon nga xam ni foo mu daan toog ba mu fa nekkee sam xel dana dal waaye jëf yu bon ya nga daan def doon jëmm yu xasaw yu ñaaw yu raglu yoo xam ne foo leen mës a gis samp saw xel yu jege la loolu mooy la cay am ba keroog sun borom di dindi ruuga bu fekkente ne ni ku am ak texe la sun borom daf koy nocci ndànk mooy malaaka mi koy jël si da koy nocci su fekkente ne nii koo xamante ne nar naa ami jafe-jafe sun borom day malaaka mi day féq ruugi da koy féq da koy biif te loolu la alxuraan nettali moo tax mu mat a bàyyi xel bu baax a baax ci bi ngay dund lépp luñ la wax ni la baax na bu ca xaar kenn bu ca déglu kenn ne ca ku bëgg a jege yàlla del sax ci jàng alxuraan ku bëgg a mucc ci biir bàmmeel del sax ci salaatu ala nabi ku bëgg a mucc ci ab isaab bu ëllëgee moytul deru gor ñi te tëye sab loxo alali jàmbur deru gor ñi moytu ko yooyu rek moo nu fa yàggal ginnaaw boo xamante ne nii étape boobu weesu na say bokk lay jële foofee nga tëddoon takk ba nga dëgër yóbbu fa nga xamante nit ba ngay dund kon la toog fi benn minute xaar ma nga lànk fa lañ lay fat benn ca wanag wa wala ca sangukaay ba wala ca margo ba rek ñaar yooyu dong nga fay fanaan ñi la gënoon a bëgg ci biir njaboot gi gënoo a taqoog yow koo fanaan ak moom mun la ñemewuma ko kenn du jege koo ni jàppal mun laa saa moom xoolal kaneen mu des wàccaay waajal kii ngir jële ko nag fii ci barab bi sañciloo ko ganeen kër nag ku ne ci kanam loolu itam di am ay taxawaay moo tax may wax ni nun nun ñépp war a jàng nu ñuy sange ab néew nu ñu taxawa ku faatu nit bu tollee ci waxtu yooyu nun ñëpp war a jàng nuñ koy taxawoo nu ñuy sangem néew nun ñëpp ko war a jàng li ñuy jàngal ko faatu ñun ñëpp ko war a xam waaye dangay gis ni nit ñi umpale nañ ko te defuñu ko problème ginnaaw nit ñi defuñu ko problème nag man maa koy def problème jéem a wut solution bala maa dem ndax dangay gis ni nit ki si buñ xasee ni faatu na ñu néew lay am ñu ko nangoo jege ci ay bokkam yi ko gënoon a jege ñu néew buñ ne sang kenn ku ne commencé arrière dellu ca gannaaw kenn du ñëw léegi dañuy fay rek nu sangal nu bu dee Tuubaa mën nañu am yaqin <coughs> ak ku kóoluteef ci ñi nu koy defal ndax ñi nu ko dénk seeni taxawaay matte na ko waaye ndax barab yeneen yi ci des noonu la demee est-ce que doo sangalum néew rek ñu xëpp ko ndox rek nga génn rek ñu sotti ko si wam ndox léegi laxas ko jox la mën naa ne te ñàkki taxawoo ko waral càngaay yi daam lum laaj bu dee jigéena dañ koy daggal ab sér wutal ko mbubb daggal ko musóor wutal ko ñetti mbalaan bu dee góor a dañ koy daggal tubéy daggal ko mbubb wutal ko kaala ba pare wutal ko mbalaan muñ ko laxase yooyu yëpp dafa war a am te yooyu su fekkente ne ni maîtrise woo ko jàngoo ko doo ko xam ak it léemaay yi nga xamante ne nii nit daf koy soxla dañ daan wax ni sëñ Cheikh Mbacke sax moo doon wax ni boo amee ku faatu laatu ñu koy génne biir néeg ba nga jàngal ko sóoratu yaasin foog naa ni du yóbbaale bàkkaar ñaata néew fi faatu te kenn jàngalu leen dara dañuy ñëw rek jàpp ca tànkee kee jàpp ci ndigg la ñu tegal béjjoo teg ci ka oto bi dem yóbbu wala ñu boole ko mat laa ba mu doon taxañ rek yóbbu ñaata néew ana seeni bokk nit dana faatu ñu bind fii ci dënn bi laa ilaha illallah kalimat tawxid boobu dana tax dee su ko mbugal waaye ana ñu ko xam ana ñu ko nangoo def ndax ñàkk ko ay taxaw ndox yooyu ñu koy sange ñetti ndox yooyu nga xam ni benn bi day ànd ak saabu bi ci des càngaayul farata bi ci des ndox lay doon mu ànd ak laj koloñ pour gëtt gu neex gi yooyu yëpp daf koy laaj bën bëni boppam yi dañ koy sakk dañuy sakk nopp yi coton sakk bakkan yi ba pare laa laalal ko gëtt ci ay rukkookaayam jël coton yi def ci laj laj ko lañ kepp ko ci xarantey tànk yi diggante baaraamu sànq lañ suuf ndax foofu ñaari léeg-léeg day am lu fi ne léeg-léeg nit da koy wéyaale rek moo tax ñu fay def gët yooyu yëpp ñu baax la ba mu agsi ca taxawaay ya mooy ca jullee ba foofu nag laa gën a amee am tiit moom jullee ab néew moom wax dëgg yàlla moom sama xel du ci dal mukk mukk mukk mukk ndax société bi dañ koo banaliser dañ koo wayafal defuñu ko muy dara ndax yàgg giñ ko yàgg teewe ak miin giñ ko miin bala ko woon a xam fi mu toll nii waxuma faneen fii ci mbooloo mii laay wax nga yor micro trottoir kenn ku ne nga ni ko taril ma ñaan gi ni julleem néew doo doo am lu bari lim bu tuuti ngay am maam defuñu seen yitte sax ci war koo jàng ci loo xam ne waxtu wu ne koy soxla ngir taxaw sa mbokkum jullit ñaan gi ñu jullee am néew ñu néew ko ci man ñu ci bari bu ñu ñëw ci jullikaayub néew ba duñu indaalem jàpp te doo gis ñu tiim te tiim nga sax dala wëru ndax fardu kifaaya la te xëy na am na ñeneen ñu ko mate julli ga ñeenti kàbbar la kàbbar yooyu farata la buñ la ci rawee danga nga koo war a fay te dangay gis bokk yoo xam ne buñ ñëwee benn rakka la ñu fekk ci julli gi bu imaam bi sëlmalee ñu wëlbati ko kooku lu mu doon wut ci julli gi lan la ci doon wut xamut sax li muy def yooyu yëpp dafa mat a bàyyi xel bu baax ci taxawaay léeg-léeg itam nga gis société bi bàyyi fi imaam bi ko war a def di dabu ji am sëñ diw moo xamante ni waat daa ci yàlla mokkalut julli gi ñuy julleem néew te du wax mut ni mukk ni leen mokkaluma ko te yooyu tam ay erreur la fi mu doon yoo xam mi ngi am ay nit ñoo xam ñu ngi leen di taxawaloo duñu wax mukk ñu leen di taxawaloo lii nga may def loo mënuma ko waaye dañu jël engagement di ko def walla dañoo jàpp ni mbir ma foofu lay yem dangaa jàpp ni kii fii mu tëdd tey yow doo fi tëdd wala da ngaa defee ni li nga ko def du ak tooñ da ngaa jàpp ni kenn du ko lijjanti seen ginnaaw boo lëgee yooyu yëpp dafa mat a bàyyi xel. ba pare néew na itam mbooloo mu bari moom yi nga xamante ne nii diw sàngam mii faatoo leen taxandiw a néew na ci mbooloo moomu ñoo xam ne buñ dikkee ci yitte diw moomu la ñu ne seen yitte bopp lañu ne ñeent ngay gis fee ñuy waxtaan ña ca des nekk fee di kuréel di ree di tàppante te néew baa ngi tëdd nga xam ni mbirum kii moom taxut ñuy waxtaan. bàyyiwuñ ko xel sax ndax tàmm guñ ko tàmm suñuy yóbbu itam da ngay gis ñu ni may leen néew bi mu jàll néew bee jiitu kuy gunge ku ñemewut yaa war a jiitu nun noo waroon di jiitu di jàng alxuraan di ko yàllu kemtulaay liñ man di def salaatu ala nabi di jàng ay muslaay néew bi topp ci ginnaaw ba keroog ñuy agsi waaye dañ naan may leen néew bi mu jiitu mooy ñëpp dégagé nañ seen responsabilité ñu sóob ko ci yoon wa suñ ñëwee teg ca kaw kaw jànj bañ koy wàcce mooy suuf sañ jële woon ci biir pax ma seen yéene jëpp mooy léegi dugal ko ci biir pax mi te pax moom yi dana la parasanté boppam mooy kër gu lëndëm la kër gu wéetaay la kër gu tàng la kër gu xat ndax ñaari sibru dong la ñuy natt ñaari yu toll nii képp la ñuy natt loo ponkale ponkale ñaari yu toll nii lañ lay nattal noox la ci biir te wet nga ci tëdd ñaari yu toll nii benn bunt la am boo duggee ñu ko benn bunt képp la am booy dugg ñu di ko sakk te moom dana la présenté boppam dana la wax ne la këru wéetaay la kër gu landëm la kër gu yeneen bagage nga ci biir yoo xamante ni bu suñ borom nammee ci yow yeneen da leen gis am nay jiit am nay jaan am nay sax yoo xam ne kii gas du leen gis ñi tiim pax mi duñ leen gis waaye néew bi moom dana ko gis te boo ci àggee nga koy xam bu ñuy wax nii nag dangay ngay defee ni kii wax day ñàngal waaye buñ ci àggee ngay xam ni ndeke lépp dëgg la te say bokk bala ñoo tàggoog yow dañ laa dugal ci biir pax mi foofu nee nañ doomu aadama dana fa yuuxu yuuxu goo xamante lu dul bàyyi ma lu dul doomu aadama dana ko dégg ci bu leen ma fi dugal te noonu bala noo tàggook yow moom dañu laa yeb ci biir nga gis ni bu doon ci yeneen barab dañuy gas ba pare nguróoñaat pax mi nga xam ni dañ lay dugal ba ca biir làq la fi ñuy wàcce suuf si du doon ci sa kaw gis ci ñeneen ñoo xamante ni am nañu laa biir tam gu toll ni bu ñu gasee danañ gasaat maneen pax ci digg bi jël ay bant teg ci jël ay xob teg ci door a wàcce suuf si ci sa kaw waaye gis na bokk yoo xamante ne ni direct rek la ñuy def menn pax la ñuy gas bu ñuy rotti suuf si boo jegee néew bi dëgg léeg-léeg da ngay dégg yax yi ni muy ruccu ci ndax suuf si ñu jël ci kawam faar yi di bàyyi. dangay gis ñoo xam ne sax moom danga jàpp ni ñii du ñuy nit ànduñu ak seen xel te yooyu yëpp mi ngi am yooyu mat naa bàyyi xel bu baax a baax ndax genn wet nga fay tëdd wetuk ndijoor la doo banku amul wëlbatiku bi ngay dund sax bu ñu la fa yaboon ni la génnal mënoo génnal sa bopp waxantuma nag bi nga demee ba tële ci sa bopp nga xam ne amatoo benn kàttan amoo benn pexe dem na te gis nga diggante boo bii mbokk yi wax li ñu xam su dee dëgg lay baax na ndax yàlla moom dara ump ko waaye léeg nga dégg fa ñoo xamante ni wóor na dañuy théâtre li ñuy wax dara du ci dëgg ndax dañoo defee ni suñu borom day nelaw wala dafa absent ak a mat bàyyi xel te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñi doon suul buñ nee wërëñ nga daal yor at teb bar sàq mooy la ngay daal di bëgg mooy bëreet jóg ndax da ngay dégg seen dàll yi ni ceppet ceppetee seen tëstën yi ñuy wàññi diggante boobu ñaari malaaka yooyu danañ fa ñëw da ngay dégg gars yi fii di di di lépp ci biir murid gi daal duñ ko gis ak duñ ko nàngam ak sëñ bi nee na nàngam ña sëñ bi wax ni duñ ko gis dangay laaj sa bopp ba xam ndax bokk nga ca wala bokkoo ci ndax sa pas-pas àgg na foofu wala ak goj sëñ bi moom li wax mooy ku ko fa gisul ci yow la kon mat naa bàyyi xel bu baax a baax waaye nun dangay gis ni sunu teewee ci barab yooyu nun ñi séq néew bi moom danga naan ñii dañuy théâtre maam dañuy wax wax yoo xamante ne ni tegewut fenn ki koy wax du kenn kenn dara du ci dëgg léegi la ñuy suul ni ma nga àjjana te te la lay tax xam ni du dëgg mooy ki la noonu wax naa la mi nga àjjana bu ngeen demoon ba ca kër ga nga jox ko suuf ni ko demal yóbbul ma ko ca bàmmeelub diw ma dalaa waroon ni kay ma nga àjjana nekkatu fa du ko yóbbu waaye mooy waaxu ba ca biir barab ba mu sottiwaat ko bu weer wi waaj a del si déwén ni da ngay dégg communiqué ci rajo yi ñaanu sëñ diw ga bi sàngam la sëñ diw nàngam ak nàngam xanaa néew ràjj na kon am na faneen fu mu nekk kër googee mu sañc mooy kër gi ngay mujj dëkk ci àdduna di kër gi nga jëkk dëkk ci barsax waaye ay jataay nga ca kanam nag yoo xamante ni nii bu la sun borom defalul ndimbal jataay boo ca feeru moo gën a metti ba nga paase ndax foofu daa am bagage si boppam boo demee ci silkul jawahir sëñ Tuubaa nga fay nettali malaaka mu tudd rawmaan xam nga ku ko fa bàyyi mooy ñii saw te saw mi du fer ñu ju woggantiwaat seen tubéy di dem ñooñu dong la fay xaar te yar ba mu yor buñ dikkee dana leen duma képp kuy dem ci wanag di saw yi te saw ma ferul nga woggantiwaat sa tubay di dem booy boo nga xam ne raw maa na nga fa di la xaar te da ngeen gisee sëñ baa ngi koy nettali ci silkul jawaahir nee na am na koo xam ne bi nga ko dóoree cër yi daa tàggali ko kooku yuuxu ni ko li tax nga may dóor daanaa julli di woor di aj màkk di génne asaka raw maa ni ko nu may def ma duma la dóor da daan saw te saw mi du fer nga wogganti sa tubay di demaale ak sobe ja sobe am na ñoo xam ne waxuma la am sax waaye tàngaayal janaba sax dañ koy yendoo ba ngoon di forti forti fu ne ñu dugg fa duñ ci am soxla am ñoo xam ne sax xamuñu far nu ñu fa nu ñuy sangoo farata nu ñuy sangoo farata gis naa jigéen ju dem bay boot ñetteel bi doomam di laaj nu ñuy sangoo farata ma ni ko yàgg sa jëkk ren di rek gënoon ci yéen ñaar yéen ñaar ñëpp ci lu ngeen ne woon kon diggante la boo xamante ne nii bu danger la tëraay bu yàgg boobu yi nga xamante ne danga ko fay tëdd te kenn xamagut kañ la jëm lu dul ni mu soob suñ boroom ndax balaa yàlla jublu ci bindee fi moom àdduna daa tukki li fekk àdduna tukkeegul kuñ la laaj ne leen mi ngi ci pax yi bu dee ruu yi ma nga fa sun boroom denc fa ko soob tëraay ba nag mën naa neex mën naa naqari tëraay ba mën naa neex mën naa naqari maag yow mën nañoo bokk tëdd lalu duubal lii wala kenn ku nekk ci ñun si yor sab duubal lii fu la neex bëri mu jëm nga yeewu naan guddi gi daa gàtt man wëlbatiku sax defuma ko bët set kaneen ki ci des yeewu ko dikk naa la li ma fanaane biig bu ma ko naree fanaane tey jaral na ma toog di xoolee te yu muy gis dong lay doon te yow gisoo ci dara moo tax mat a bàyyi xel bu baax a baax te gis nga buñ jógee foofee ca teraay ba jëm ca pénc ma dañu nit ku ne malaakaay jiitu nit toog ci digg bi malaaka topp ci ngeen wuti penc ma mooy amul foo jëm nit ñi defu nag bu ñu ko jëndee daral ab pël jiitu yoru buum nga neen pël topp ci yoru yet saahiq wa mashud mooy kuy wommat ak kaneen ku topp ci gannaawam di teere nga jëm ci penc ma waaw saahiq wa sahid yooyu dafa mat a bàyyi xel muy kuy mat ak kaneen ku seere topp ci gannaawam loolu dafa mat a bàyyi xel bu baax a baax taxawaay ba bés penc rek taxawaay ba la tax ñu naa ko yowmal xiyaama danañ ci àgg taxawaay bu yàgg yàgg la alxuraan wax na ci lu dul jeex fii fi yawmin miqdaaruha xamsiina alfu sana la wax taxawaay ba képp mat na juróom fukki junni at ci buñ ko doon natt ci ati àdduna yoo xam ne nit ñëpp dañuy taxaw ni sàmm kenn xamut foo jëm kenn xamagut ci sa bopp dara koo wax mun la taluma la sa bopp rek koo wax rek naa la mën tawi ba moom taluma la yow ma yafirul mar'u min axiihi nit di daw mbokkam wa ummihi wa abihi nit di daw baayam di daw ndayam wa saahibatihi di daw jabaram kenn ku ci nekk ku ci gis sa morom rek sa saw xel di mooy tund lu tax mooy daa am àq yu dox seen diggante yoo xamante ni doo jéggi siraat mukk te réglé wuñ ko mënta ne loolu tax ñuy dawante gis nga ni jigéen ñi def ci ngeen bu ñu la amee la yaari ndaw ndawtal ñett mënatoo leen a gis ci xew xew woo leen gis dañuy moytu moytu ba keroog wala dañuy dàq heure ba ngay dem ci xew wa ñu door a ñëw ëllëg yomal xiyaama ko gën a garaaw da gis ñoo xam ne dañuy ñaan yàlla ni ko te nga noo dimbali yóbbu nu sawara ñu noppalu ndax taxawaay bu metti bi taxaw rek sa mu taxaw ak yu tiitaange yu bare bari yoo xam ne suñu borom da gis nit ñi ñu mel ni ñu màndi yàlla ni màndi de sama mbugal mee rek moo tax ñuy jayi jayee ko kayan kayan ngi ni wa tara naasa sukara wa ma hum bi sukara walakin azaballahi sadid mbugalum suñ borom mi moo tar te yi ñuy wax yépp dooyu passé yu ñu jëm ci suñ kanam la la suñ borom na wax wax rek man saa afal wa man saa afal yakfur kum neex gëmal kum neex weddil waaye mi ngi ci suñ kanam daañu ci àgg néewut ci gannaaw yooyu mat naa bàyyi xel bu baax ca taxawaay boobee rek dangay ngay dégg sëñ Tuubaa fi mu wax naan yajiu yawmal qiyaamati wal anbiyaau lahu wal kullu xat wakima yaqulu kulluhum nafsi wa ahmaduna yaqulu kulluhum nafsi mboolem yonente ñëpp koo ci daw wuti naa la taluma la may ma sama jàmm sa bopp laa tal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam képp la fekk fa mu nekk ñaan ko mu ñëw ñaan boroomam mu yaram bindee fi képp moo tax yi ñuy wax nii yëpp ay théâtre la ñun dañuy daaxaan rek yor sunum xel di di ràcc rek di xalaat di ràcc di tay ci sunu kanam rek mu mel ne àjjana moom da ngay nelaw rek yeewoo fa wala dañuy rob rek nga waaxu dugg àjjana wala ëllëg yomal xiyaam sëb sëriñ day ñëw taxaw rek ne ana ana sama waa kër ñu ni ñu ngi nii mu ni jaar leen fii ah ban àgg ca wallaahi laasim buñ ci àggee ñu xam ne yàlla benn buur la buñ ci àggee ñu xam ne yàlla benn buur la li ñuy wax lépp dañuy lépp te li tax nga war koo gëmm mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa moo gën ci mbindeef yi bi ko suñ borom naree yóbbu opp wopp ja ko yóbbu dem na ba mënatul a taxaw ndax taraayu wopp ja te yàlla nee na ko yaa a gënal waaye teewut dañ koy lëng muy julli buy dox tànk yi di direeku dem na ba bopp bi di bëgg toj ndaxu métit nga xam ne dañ koo takkal bopp bi wutu musóor takkal ko ŋaaw bopp bi takk ba mu dëgër dem na bañ taajal ko ndox ndax tàngoor wi génn ci yaram wi ñu jàpp ne loxo boppam bi moo ëpp yërmaane ñu koy xoojal loxoom ci biir ndox mi di ko sëlëmal boppam ndax jàpp ne loxo boppam bi moo ëpp yërmaane ci ñoom ñu di ko defal nga xam ne mënalatu ko boppam yàlla mi jaar ak soppeem foofa mën naa jaar ak yow fa ne